salaamaaleykum askan bu ñuy seetaan nuyu nañ leen ziar na leen bu baax a baax ñi amaat mbégte kontaan bu baax toogaat bi Grand TV ëtt Fatou di ñaan yàlla rek commencé ko si bisimilahi rahmaani rahim àggale ko alhamdulilah rabil alamin di julli si sang-sang yi Seydina Mouhamad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Baye Fatou Mata bintu rasul sama trondo maama Cheikh na Cheikh Sadou maama Serif Alwani Malick Ndiaye sama waa ji waaye nag di amaat mbégte bu baax nag waaye nag eh, damay ñaanal ñi nga xamante ne dañoo génn àdduna yal na leen yàlla yërëm taxay leen àdduna fi daw si yi tamit yal na leen fa yàlla génnee keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag tey nag ñu fas waxtaan la nga xamantene moy mirage miraas ne mirage nak lu mu ëmb dafa bari mo tax ne dama ci fasiyene ànd ak nga xamantene moy sama jantal oustaz la ko tuddé jantal oustaz o man yaay ma ngi lay nuyu de la ziar bu baax baax sa bula tamit lan la tamit dama ka ragal fa tabarakallah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadu amma baadu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu et mbokk yi ñuy seetaan ci biir réew ak biti réew fii ci Grand TV tabarakallah fu waay mën a nekk rek eh, ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel bu baax a baax baax fa tabarakallah xam naa nuyoo bi du matale mhm. naa damay jël sama nuyoo rek wér ko ci sa nuyoo comme ni ngay nuyoo waa àdduna ak ñi nga mhm. tudd yëpp fa tabarakallah su ma jëlee sama nuyoo rek toftal ci sa nuyoo rek fa tabarakallah sama bés dina mat fa tabarakallah waaw bule bi fa tabarakallah xanaa jéem a ànd asamaan bi rek. ah dégg lii waaw fa tabarakallah eh, waaw di am kontaan mbégte bu ba ci uh-huh. delloot bi ma delloot ci sa plateau bi am solo bi mm-hmm. xaw naa fi géej waaw tabaaraka mais maa ngi jégalu bu baax mm-hmm, mm-hmm. Eh, léeg-léeg man damay am envie di ñëw ci sa plateau ndax parce que ku fi ñëw masa macha allah euh, njëriñ la ciy gisee fa tabaarakallah njëriñ la ciy jëlee eh, Seyda ñu lay ziar bu baax a baax di la wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu macha allah di nuyu tamit ki nga xamante mooy sama jantal oustaz Omar Ndiaye di ko bëggee bu baax a baax nee naa yow waroo di gëj oustaz parce que fii laa <laughs> xam naa blog moom da daal di ma ko jox rek ma daal di ko jox sama papa. amul benn problème blog moom nice na trop moom yow daal yow sama doom nga naa parce que sama taw Fatima. la ah, déggal lii. kon nekk sama doom moom lépp lu mu soxla ci man a dem koy jox. macha allah bu ñu paree rek ma summi ko. Ah, Aliou Ba wala ma summi ko ah, du ma ko laal <laughs> du ma ko laal heure bi sa heure émission bi <laughs> macha allah ñi amaan mbégte bu eh. baax a baax toogaat sama plateau Grand F TV ëtt Fatou mm. di di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk si diaspora bi duñu suivre duñu bàyyi xel bu baax a baax ñiy jégalu bu baax na fan yi nga xamante ne tourné moo ko émission maa ngi siy jégalu rek xat-xatu jamono moom ma jàpp mm. ñu ngi siy jégalu bu baax a baax nag di ànd ak équipe Grand F TV mm. ñi fasali fas yéene waxtaan la nga xamante ne tey mooy héritier bu ñu ne héritier nag muy miiras ki nga xamante ne dafa génn àdduna mm-hmm. bàyyi fi alal mbokk yi di ko xëccoo wala kat ñu xattal doom ji ba nga xamante ne du laal dara tamit si alal bi mm-hmm. moo tax ma fas yéene si ànd ak Omar Ndiaye fas yéene ko posé question yi nga xamante ne tey ñi nga xamante ne seen waajur dañoo làqu mm-hmm. bàyyi fi alal te alal bi kenn du ko miiras euh, oustaz Omar Ndiaye ñi nga xamante ne tey dañoo génn àdduna bàyyi fi héritier te kër miiras gu leen am na ñi nga xamante ne dañuy nawtee seen njaboot ba لوني وقت سي علال بي لان لا سي دينا واخ واو الحمد لله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز حكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وقل الأقدة من لساني فخ حولي أه شيدا ما شاء الله أه في نغ تي آه، آه، لو ام صلى الله تي لو رال تي جامونو ني تي وقتان تي بروم سبحانه وتعالى دفتكو باي خيل bàyyi bi mu ko bàyyi xel loolu moo tax mu jàngale ko ci alxuraanu karim alxuraanu karim muy téeram boobu e, e, jox ko rasulillahi sallallahu alayhi pour yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mun ko àggee ay e, xeetam mu nekk loo xam ni lu doy waar la parce que mbir yi ci nekk moo xaw a lëj loolu moo tax mun naa wax ni manam comme plateau yi am wala yenn cérémonie ñi ni dañuy waxtaan thème bi spécial mirage la da fay xawa rar parce que mbir la bo xamni so so ci wax il faut nga andi ay argument yu wóor parce que borom bi subhanahu wa taala mom moko kon li borom bi subhanahu nga nar ci wax te doo ko teg fu leer mm-hmm. boo moytul sanctionné dina la ci topp ëllëg yomal xiyaam mm-hmm. loolu moo tax euh, ñu bëri yenn da nga gis yenn ustaas dañ koy jàng sa mais pour ñu euh, jàngale ko mm-hmm. maanaam dafay diis day il faut am ñoo xam ne dañuy nekk xaasa maanaam spécial ci loolu waaye fa la mun nañ ci ñëw parce que bu ñu nee miiras rek dafay am lu koy sabab waaw miiras dafay am lu koy sabab bokk na ci miiras balaa mu mun a am day fekk e, e, ki ñu war a miiras dafa génn àdduna mm. léeg-léeg da ngay dégg ñi ne diw daal miiras na boppam avant muy génn àdduna no déedéet loolu du miiras déedéet maanaam yow bi nga nekk àdduna mm-hmm. yow am nga droit nga partage sa alal yàlla may na la ay kër may la ay njaboot lii kenn ku nekk nga jox ko benn kër. Mhm. loolu nag du du du doon miiras léegi nag ci jamono yooyu nag am nga dura yow nga partage sa kër yi kenn ku nekk am lu mu war a am mais teewul nag am na loo xam ni yaa ko moom. Mhm. mais loolu boo génnee àdduna incha allah ca leen kay séddoo looy na bi ñu koy séddoo ci sa ginnaaw loolu moom moo tudd miiras maanaam baat bi. baat moom mooy waaw maanaam mooy doon. léegi nag miiras tamit. bala mun a am il faut dafay nekk loo xam ne ci deret lay jóge maanaam yow ki nga war a miraas benn ngeen jaxasoo mm-hmm. te boo leen jaxasoo rek seen deret jaxasoo na mm-hmm. muy góor ak jigéen benn tamit mun na doon deret mooy doom yi nga jur ci sa ndigg kon sa deret la jóge mm-hmm. kon bu boobaa léegi miraas mun na am mais am maa nga jël benn xale fee rek wala nga gis benn jigéen fee rek takkoo ko defoo ko dara nga génn àdduna mu ne moom dale euh, ñu ne kii il faut mu doon la parce que sa xarit la war a nangam nangam déedéet loolu bokkul ci wàllu miiras mm-hmm. kon ne cause bi tax miiras mën a am ci ñetti benn dafay doon jëkkër ak jabar waa ñu takk ko ci farata yàlla sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi ci wàllu euh, soxna il faut que dafay nekk soxna soo xam ne yow da nga ko takk. da nga ko takk ci farat yàlla ak sunu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. du doon ni ay coro nii rek yi sama coro la woon génn àdduna ñu. doon ko waaye nag imaam nag ku am doom nag si wax dëgg yàlla. ah euh, takkoo seen yaay ngeen jéggal ma ci kàddu bi waaye nag bu fekkee dafa am soxna si biir kër gi mu am doom ak doom bu nga am ci biti est-ce que doom boobu tamit dina bokk ci miraas bi tamit loolu tam foo ko tamit waaw ci laay ci laay ñëw loolu ma ma ma ma déparé fële ci soxna si mm. ndax parce que balaa ngeen doom il faut nga ne yaay foog nga ne yaay kon côté yaay bi il faut mu leer foog mu leer ndax parce que am na ñoo xam ne tey e, e, ñu ngi ànd ak jigéen mm-hmm. e, li ñuy wax kii daal sama sama sama càmmañ la wala kii sama jigéen la mm-hmm. loolu xaw a fës ba ñu foo ni kii daal kenn bu bu njëkkee génn moroomam àdduna mm-hmm. keneen ko war na ko mën a donn mm-hmm. loolu tamit war nañ ci bàyyi xel na parce que loolu mu ngi am ci réew mi mu bi te loolu du sharia du sharia kon nag ci diggante góor ak euh, góor ak euh, euh, góor ak jigéen mm-hmm. balaa donn mun a am de fekk sëy dafay dox ci seen diggante waaw sëy bu doxee seen diggante léegi nag kenn ku nekk war na mun a doon moroomam bu fekkee moroomam daf ko jiitu. waaye imaam foofu fa nga laal dafa am solo. parce que hmm. da nga wax ne ñoom ñaar bu ñu sëyee ku ci njëkk a génn àdduna rek foofu miraas am. waaye bu fekkee ka nga xamante ne tey. maanaam takku seen yaay. maanaam mu génn àdduna doom bu mu ci am tey. Hmm. miraas boobu tey nu muy demee. maanaam euh, ndaw sa xam ni. amul jëkkër. waaye dafa am moom doom nii rek. yàlla def waa ji génn àdduna si diggante bi ñu am benn doom bàyyi fi alal. mais jotu ko woon. Euh, takk daal jotu ko woon takk. kon mu ngoo ko. Mm. kon boobaa doonu doo am naa parce que. Mm. doom ji maanaam juddu na foo xam ni e, e, du farata. du farata juddu si buum daal. wa juddu ci buum. Mm-hmm. te ndaw si takkuñu ko. takkuñu kon foofu daal kenn du muy kon foofu moom bu génnee àdduna moom ku góor ki. Mm. moom du du du du du doon. du doon kon ñan ñoo war a doon alal bi. voilà kon maa ngi ñëw. foofu laa bëgg a ñëw léegi nag ñi war a doon nag. <laughs> moom la ñu wax euh, al al fard mhm. maanaam doom ji nga xam ni fa la dañ ko jur ci farata yàlla sunu seen bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. Mhm. maanaam ñaari way juróom dañoo takkante kon doom bu ci sosoo rek soso na ci lu neex borom bi subhanahu wa taala kon doom jooju war na mën a doon mais amaale xew ci jamono ji léegi ñu ne doomu doom boo xam ne judduwul ci yoon kooku moom du doon. loolu alxuraan moom bu fekkee ne waajur moom kese bu fekkee moom kese la am ci doom. Mhm. mais du du du du texul euh, du te euh, euh, mu doon parce que alxuraan bu xasee wax rek. sariya bu mhm. xasee wax rek. amoon ñu ne mais nangam nangam nangam. Mhm. lépp dafa tënk si alxuraan lépp dañ koy tënk ci alxuraan. ndax parce que dama jamono dafay dafay dox te alxuraan bu xasee wax. fii ba yomal xiyaam waxam du teggeeku. léegi nag sentiment mun na am. Eh, est-ce que du ñu def nii dina jëf nii nangam nangam mi beneen côté l'islam dina nangu ñu rafetal. ñu rafetal comme nii tey eh, ma am ay njaboot eh, waaye ci biir njoboot yi am na koo ci koo xam ni maanaam bi ma koy am. Mhm. jaarul yoon. jaarul yoon. léegi nag kooku. Mhm. ci biir njaboot yi bokk waaye bu ma génnee àdduna. moom du mhm. doon. waaye bu boobaa léegi nag ci wàllu rafetal. mun nañu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo doonu alal ji. Mhm. kenn ku nekk cër bu mu am mu compot ci. jox ñu dajale ñu jox ko. jox ko loolu moom fa aslixu bayna axwaykum loolu mun na tax diggante bi gën a rafet euh, tax. Mhm. loolu mun na tax tamit mbokk bi gën a ñoom. ñoo macha allah leeral bi am na solo mm. nee nañ ñu toogee nag euh, Grand F TV. Mm-hmm. dañuy xool la nga xamante ne askan bi ñu ngi koy dund ñu daal di ko indi du ko partage ak yéen. Mm-hmm. macha allah ba tey dama des ak sama jantal oustaz rek wala sama jantal imama macha allah ba tey dama des tamit ci sumbulu. bu ñu ne ah. nag euh, sumbulu maanaam. Mm-hmm. Euh, ka nga xamante ne dafa sëy si biir këy kër bi. yàlla def am fa doom. tey jigéen boobu tey keneen jëkkëram takk keneen njaboot fa amul moom njaboot. boo mhm. ko des si biir kër gi lan lañ ko war a mën jox muy sumbulu wi. waaw fa tabaarakallaahu ahsana xaalixiin maanaam ki ñuy tuddee yaay. Mhm. muy soxna. Mhm. moom la ñuy wax ni borom këram bu génnee àdduna. defee am huitième tiers mooy sumun muy sumun waaw sumun sumun wala sumul <laughs> ndax parce que ah. eh, bu ñu suñu bañee suñu bañee juum ci bar xam nga sumun mm. baatu arab la baatu arab la bu ñu nee sumun rek mooy mooy mooy mooy mooy mooy samaniya samaniya waaw bu ñu nee samaniya mm-hmm. mooy juróom-ñetti mooy juróom kon nag bu ñu bañee jum ci baat bi ndax parce que mm. am na ne sumun sumun sumun rek mais sumun mooy alal ji dañ ko xaaj. Mm-hmm. huit parties. huit parties les huitième partie bi. Mm-hmm. moom la arab ne. nga xamante ne dafa sëy amu fa doom. non déedéet ku am doom ak ku amul doom yëpp. ñoo yem ñoo yem ñoo yem. Mm-hmm. yow daal li sax daal yow doon nga jabar ba pare. parce que loolu tamit dafa war a leer ñu ñuy seetaan voilà dafa foofu laay ñëw parce que ne seen borom kër bu ñu génnee àdduna pour ñoom. dañ leen war a miiraas bu ñu miiraasee yu doom yi di am ñoom loolu la ñu war a am. loolu tamit foog ñu leeral koy ah non déedéet. Mhm. doom moom mooy ëpp cër ci yaayam. ci yaayam. Mhm. parce que moom moo moom moo gën a jege ka bàyyi. Mhm. donte ci moom la jóge waaye nag boo delloo cosaan ci ci ci bàyyi la jóge ci bàyyi la jógee. léegi nag doom bu taxawee. dafay ëpp doole yaay ji. kon yaay ji ci alal ji sumun lay jël. léegi lii ci des nag doom yi jël ko bu fekkee ne ay góor ak jigéen la. léegi dañuy xool. waaye à chaque fois rek ku góor mooy ëppale. waaw mooy ëppale jigéen. waaw à à chaque fois. Mm-hmm. maanaam ci côté boobu à chaque fois. doom moom mooy ëppale yaay. Mm-hmm. léegi ci biir doom yi nekk bu fekkee ne ay góor kese la kenn ku nekkee tolloo. Mm-hmm. su dee jigéen kenn ku nekk tolloo. mais bu fekkee ne góor ak jigéen la. kon boobaa nekk góor euh, góor yi dañuy jël deux parties deux jigéen yi jël benn xam nga lu tax. Euh, borom bi subhaanahu wa taala toujours suy wax ci alxuraan lu jëm ci wàllu kilifteef loxo góor la koy teg loxo góor la koy teg xam nga comme man ak yow ñoo bokk suñu bàyyi génn àdduna léegi ne am lu mu fi bàyyi léegi nekk bu fekkee ne suñu yaay mu ngi dund mu jël wi huitième tiers bi léegi li des ci alal bi bu fekkee ne ni cinq million la kon booba su ma amee deux million yow benn ngay am les benn million bi buñ ko xaajee. Mhm. bu fekkee ni euh, suñ suñ ko suñ suñ ko xaajaatee léegi ci biir xaaj bi man maay ëppale léegi su ko defee nga dellu ci des. Mhm. mais nag boo xoolee ci wàllu dundin ak kilifteef. Mhm. la nga la nga manqué la woon ci euh, ci euh, miraas bi boo xoolee ba gi man maa lay dundal. parce que man damay jàppee ni yow sama rakk nga. wala sama mag nga en tant que jigéen. war naa la mun a jàppale kon li ma am ci beneen part parti bi boo xoolee dafay delluwaat ci yow ci jàppale yu ma lay jàppale en tant que sama sœur. loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala sunu borom ne. Mhm. kon góor moom mooy ëppale jigéen ndax parce que lu mu yàgg yàgg yàgg góor yu ñoom ñooy yilif jigéen te boo yilifee jigéen am na loo xam ne yow yaa koy jàppale ci. yéen ñi mhm. kon li nga li nga ko ëppale boo xoolee boo seetee ba seet dafay delluwaat ci ci ki nga xam ne moom mooy ku jigéen ki mhm. Mhm. voilà noonu lañuy ñuy séddalee ala ci diggante góor ak jigéen kon ci wàllu sumoon bi nag e, e, yaay loolu lay doon léegi yaay jooju nag moo xam am na njaboot moo xam ne amoon njaboot mais moom am na ci am na cëram parce que am na ñoo xam ne tey dañoo foo ni en tant que E, e, e, yaay amul njoboot. Mhm. ci sëy bi du donn déedéet. Mhm. dafa war a doon dafa war a doon. Mhm. lan moo ko doonaloo parce que sëy bi mu sëyeeg. seen papa ak seen papa. bu ñu xasee bu ñaxasee jaxasoo rek sëy am rek. boobaa léegi moom dafay doon. donte sax amu ci benn njoboot. waaye boo xoolee jamono ji léegi. ñu bëri dañu foon yi jigéen soo amulee ay doom. wala soo amuleen njaboot ci biir sëy bi rek warul doon te or ko loolu euh, euh, du lislaam lislaam lu mu santaane mooy ndaw si bu amee doom soo amul doom yëpp jëkkëram génn na àdduna moom am na cër ci mm-hmm. jëkkëram te moom mooy sumun mooy huitième cër bi mm-hmm. waaw macha allah amna solo ngeen mm. déggee ko noonu parce que mm. da ci da ciy baax mm-hmm. saa ñu éviter ñi nga xamante ne macha allah jàng nañ alxuraan xam nañ li yàlla wax si téere yi mm-hmm. ñuy waxtaan ak ñoom ndax ñi nga xamante tamit seen jëkkër dañoo génn àdduna wala seen yaay yi mm-hmm. ñu bàyyi fi la nga xamante ne tey as tamit ñu war leen miraas dañ leen war a miraas allah ba tey dañuy des jirim tam ba tey parce que euh, imam euh, gis nañ ñi nga xamante ne dañuy lekk jirim seen waajur dañuy génn ñaari waajur yëpp fa alal pour ñuy miraas jox jirim bi sax xaalis sax day nekk problème yey saa dina leen xabtal ba seen xel dem si alal bi yey saa gis histoire yey saa ñu yéeg tribunal yi wàcc uh-huh. da dama si jot a dégg ak tuuti awlu jirim kenn waru kaa lekk imaam tamit bëgg naa nga nga xamante ne mm-hmm. ay jirim lañu te dañoo téye seen xaalis te ñoo ngi koy lekk tamit loolu tamit lan nga siy wax tamit juri ci yàlla yi loolu li mu ci wax xanaa li ci suñu borom subhanahu wa taala wax mm-hmm. xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis dafa nekk ci jàkka ji di jàngale ba yàgg mm-hmm. mu ne ee eh, samay xeet maa ngi leen moytuloo juróom ñaar yi nee naa mu ne parce que juróom ñaar yi ku ko moytul boo amulee saas dëgg dëgg dëgg dëgg safaram mooy doon sa mujj waay ëllëg ci biir juróom ñaar yooyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam site ci ak lu yatiim ak lu maalul yatiim lekk alalu jirim léegi ne balaa ñuy àgg ci alal jirim sax kan mooy jirim boo pare d'abord ndax parce que dañu ne jirim jirim jirim jirim jirim xam nga tey euh, dafa mel ni sa euh, euh, nu mu tudd sa sa yaay mu ngi dund waaw sa pap mu ngi dund waaw waaw dama leen ñaanal gudd fan ak wér waaye nag bu ñu ne jirim mooy ka nga xamante ne ñaan ñi sa ñi nga xamante ne seen waajur dañoo làqu waa moo seen waajur dafay dañoo làqu mm-hmm. mais te fekk masooragul masoor guñu voilà. xam foog foofu foog mu leer. bu ñu nee jirim mooy koo xam ne waaye kenn ci way juróom yi dafa làkku benn yaayam wala pàppam wala ñoom ñaar yëpp waaye xale bi masooragul. xamagul dara. mënulul boppam dara boo ko joxee alal ji mun na ko pasar pasare. léegi nag kooku ne moom mooy jirim kooku nag dañu ni dañ ko war a toppatoo léegi ki nga xam ne nag moom moo ko war a toppatoo. moom la ñuy wax ni na jël alal ji sàmm ko ne ci créer ay liggéey alal ji di gën a bari léegi bu demee ba xale bi màgg léegi nekk nga woo ko nga ne ah alal ji sa yaay moo ko fi bàyyoon wala sa pap nanga nga teg ko ci loxoom loolu borom bi subhaanahu taala dala ciy fay tuyaaba mais bu fekkee ne ni alal ji toppatoo ko nga yow nga koy lekk nga koy noose ah lu nekk nga jënd ci ba xale bi màgg muy laaj ca alalu baayam nga toog ci nga bañ ko jox yàlla nee na dërëm par dërëm dañ la koy audit xisaab ëllëg yawmal xiyaam te nga jàpp la nga jot lekk ci sa biir jàppal ne safara nga sol si biir bu fees deel allahu akbar loolu wax wax borom bi subhaanahu wa taala mm-hmm. ak lu am wàllu yatim lekk alalu jirim borom bi daf ko misaale ku koy lekk mu ngi mu ngi mel ni yow da tiim xalu safara di tibb di seex te loolu boo ci tuubul boo ci dellul nga lëjante alal ji jox ko ëllëg yoomal xiyaam mbugal yi metti moo lay dem borom sunu borom subhaanahu wa taala soxna Faatu baa yëg ni moom moo njëkk toppatoo jirim xoolal rasulillahi bu muy am ñaari weer ci biiru yaayam la baa génn àdduna kon juddoogul mu nekk jirim mhm. <laughs> parce que yonent bi sallallahu lépp lépp lu ëpp ëppalee ñëpp. Mhm. maanaam boo bu fekkee ne yoon nga ni da am problème ba jaral la ngay mbëkk ay miir di toj ay kaas boo boo fàttali ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo lu ëppoon problème waaye dafa doon dal. dafa doon man sama papa dafa génn àdduna wala sama yaay dafa génn àdduna mu metti la boo xalaatee rasulillahi sallallahu alayhi wa mhm. eh, eh, eh, sa xel dina mën a dal. Mhm. xam nga kii jirim metti na. waaye koo xam ni dafa judd gisul baayam mhm. te baay bi muy génn àdduna fekk mu ngi ci biir yaayam am deux mois wa mhm. baada ni qadaa bi abwa abdullahi qiina mada shahraana lil hamli haada mhm. azharul kalami kon kooku juddoogul mu nekk jirim nekk jirim keroog bi mu juddoo malaaka yi dañ ko ñeewantel ba su ma ko mën wax malaaka yi dañu doon dox doxu ñaxtu ñu téye seen partekal <laughs> noonu lañ koy waxee mhm. ah mhm. ñu ne ñoom dañuy dem dox dox ñaxtu ci suñu borom bi suñu borom bi malaaka yi nii waaw ayabqaa nabiyuka ma'duura minal yutami ay sunu borom ndax sa soppe bi sa xarit bi sa yonant bi kii nar a doon yonante bi ëllëg nar doon mhm. nar a ràmm ëllëg ndax yow danga koy bàyyi mu des fii ci àdduna mu nekk jirim sunu borom ne pare ngeen mu ne waaw sunu borom ne laa na nii laa shakka xaafizuhu wa rabbuhu awnuhu kaafiyi fil umami mu ne man li ma def xam naa ko man maa teel a rey baa ji parce que dafa am lu may préparé ci moom te man bëgguma ëllëg keneen ne yàlla ak man moo tax moom mu nekk yonente mm-hmm. loolu moo tax yàlla dafa teel a dégager baayam mais yàlla dafa ne comme que ngeen da ngeen foo ni euh, euh, kii ak jirim la. Mhm. waaw jirim la waaye man yàlla man maa koy protéger. maa koy protéger kon yàlla moom moo njëkk a sàmm alalu jirim. Mhm. yàlla nee na man maa koy protéger. te bépp alal joo xam ne bàyyam bàyyi na ko fi man yàlla man maay sàmm alal jooju ba sama soppe bi màgg moo teg ko ci loxo mhm. kon loolu moo tax ñu ne luy olof di wax ni. dara boo koy digle day fekk yow nga jiitu ci. nga jiitu ci wala ngay digle sangaay sanguloo. voilà comme que yàlla ne moom moo digle sàmm alul jirim <laughs> mhm. kon yàlla moom moo ci njëkkee. Mhm. loo moo tax keroog dafa tontu malaaka yi ni. laa inna nii laa shakk xaafisahu mhm. amul benn sikki sàkk ni man yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa te boo xoolee xam nga ne protégé na lu nekk def nañ ko. coup d'état bu nekk def nañ ko rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mais yëpp dafa mujjee mujjee échec. loolu moo tax yàlla wax ci alxuraan ni. wallahu yasimuka minan naas man yàlla man maa lay sauver maa lay garde may tax nit ñi duñu mun ak am abset yow ba bañ lay def lu bon kon sunu borom subhanahu wa moom moo njëkk sàmm alalu jirim ba pare nag yonent bi sallallahu alayhi bi mu demee ba commencé woote yàlla daf ko fàttaliku mu nekkee fa amal yatima fala taxar ci surtu duha wa saa saa'ila fala tanhar man yàlla maa la fekk nga nekk ak jirim ma sàmm la aar la ba fa tabaraka la nga màgg jox naa la mission teg naa ko loxo waaye nag maa ngi lay fàttali jirim bu ñëwee ci yow mm. na ko sàmm mooy woo fa amal yatiima fala taxar loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu Musaa gis xale boo xam ne way jërëm dafa génn àdduna du mun a am sago ci moom da koy ñeewante mhm. loolu moo tax euh, euh, euh, mu bokk dafa bokk ci li ñu war a def maanaam ci ay xeetu jaamu yàlla ci bisu tamxarit mhm. bokk na ci mooy raay boppu alalu jirim mais waxuñu nga ñëw dem rek raay bopp bi noonu de <laughs> boo ko raay daam loo ko war a jox waaw voilà mhm. maanaam da nga woo nga waxtaan ak moom jël sa xaliss nga jox ko nga tereel ko. loolu nak lañu jubli ci raay bi. waxu ñu nga fekk xale taxaw rek raay boppam nga naan comme raay boppam na déedéet <laughs> voilà. loolu mo tayon sallallahu alayhi wasallam sallam bëggoon xalé rawatina xale boo xam ne fa tabaarakalla ak jirim la. parce que borom subhanahu wa taala moo ko ne fa amal yatima fala taxar way mm-hmm. bi ngay nekk man borom man ma la protéger ba nga mag kon delo mo ak jirim bu mu ñëw ci yow mukk tawat la mhm. wala soxla dara ci yow nga koy xañ kon nekk ndegam yàlla moom mooy protéger alalu jirim diggal rasulillahi rasulillahi daan protéger alalu jirim mhm. kon rawatina ñun ñi nga xam ne dañoo bokk ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nañu moytu alalu jirim yi bu baax a mhm. baax a baax macha allah nañuy moytu alalu jilim bu baax a baax parce que nag wax dëgg yàlla ku waajuram génn àdduna bàyyi ko alal. Mm. nga jël alal bi si foo di si def lu la neex keroog yow a xiyam. Mm. jilim yëpp trop te yal nañ ci yàlla musal si lekk alalu jilim. alalu jilim nag boo ko dolletul waroo kaa lekkal. Mm. wala di def naka sa dul noonu parce que gis nañ la nga xamante ne léegi dëkk bi dafa doy waar dafa lëmbe sa la nga xamante ne. Mm-hmm. kay waajuram génn àdduna bàyyi fi alal da ngay gis ñu doomu jàmbur. boo mm-hmm. ñu génnee kër gi boo ñu tëdd see alal bi kon nag keroog yow a xiyam dina métti trop nañuy xool si diggante ak suñu borom ñuy dawal tamit ci yërmande tamit daf ci am solo parce que nag yoon si yonent bi tedd bi hmm. bàyyi Faatumata bintu Rasuul dafa fonkoon jërim waaye dafa bëggoon jërim même bu la nga ne sax ay jikko yu xaw a kii tuuti dañu koy roy si Seydina Muhammad sallallahu wa sallam sama waaj yi ah hmm. njool Màkka hmm. njool Médina macha allah ah bàyyi umu kasol sama waaj yi kenn moom nee may wax ci moom du ma am sago bu yàggee sax waroo nga ñu tuuru <laughs> parce que ndeysaan dama kaa bëgg macha allah dañuy jéem a roy nag si yonent bi wax dëgg yàlla la parce que nag euh, fonkoon na alalu jirim waaye nag bëggoon na tamit jirim ba mhm. bëggul ku ko def lu métti kon nag dañuy jéem lépp lu ñu mën di bëggal jirim bañ a mhm. lekk seen alal tamit ñi santaane la nga xamante ne mhm. yàlla moo ko digle parce que nag li yàlla wax sa alxuraan rek loolu lay dëgg ñu bañ a topp nag euh, yenn mbirum àdduna yi nga xamante ne daal dafa doy waar waaye ba tey dañuy des ñi nga xamante ne rek imaam ku génn àdduna ndax bu génnee àdduna jabar bu ko ténjee pa dañ ko war a miiraas dañuy gis ne tamit nit dina génn àdduna ñu toog ay at kenn dégg nit bu génnee àdduna. Hmm. bu jabar teeñoo pare dañ ko war a miiras bu ko miiraasul du taal yi. waaw fu tabaarakala léeg olof dina ko wax. Mhm. ñu ne nit ki fekk miiraasuñu ko rek. Mhm. tànkam yi du du du tàlleeku. dafay bànku yooyu moom ay waxu olof la. Mhm. mais toujours suñuy wax buñ koy teg ci sariya rek. dina leer ci boppu nit ñi. xam nga ñetti la ku génn àdduna. ñetti étape la. première dañuy njëgi njëkk lijjanti ay borom. Mhm, ay borom. bor yi mu am. waaye ah, léegi yow dafa bëri de <laughs> ah, lépp mel ni tout lekk mal de duñu fay nag. dañuy njëkk lijjanti ah, ay borom. bàyyi maam yow xaaral yow bàyyi da nga fay bor. ba da nga fay bor. ah fa tabaarakalla ah su ma amee bor moom moom fa wax dëgg yàlla yoo xam ne moo. <laughs> ah moo baal nit bor. <laughs> man tout le temps loolu dafay travailler sama xel fekk fay ma ko rek tabaarakallah du ma du ma mën a nekk surtout bor dafa am solo waaw loolu moom mhm. te ah, olof dafa ne bor waru am rakk waru am rakk parce que bu nit ki génnee àdduna ba ñu mhm. teg ko ci buntu jàkk mhm. balaa imaam di kàbbaar di ko jullee dina bokk ci laaj yu muy laaj ay mbokkam ay mbokkam kan mooy gàddu ay borom léegi comme ça bu ne imaam a ko gàddu rek jeex na kooku dara du ko toppati. no déedéet imaam imaam imaam kay du gàddu ay bor imaam moom mooy laaj. <laughs> mbokk yi exemple rek. bu fekkee ne kenn moo ne man maay gàddu ay borom. Mm. boobaa imaam nag am na sañ-sañu jullee waaye nag yow man man mii ne man may gàddu ay borom wax jooju malaayka yi dañ ciy seede. dañ koy seede. parce que léeg jotaay bi dina neex. xumbal maa bi nga ne ah man maay gàddu lépp maay gàddu waaye jotaay bi bu xasee tas rek jeex na la nga waxul nga génn ci mm-hmm. kon boobaa ne da ngay day dugg ci kadaru naa fekk naa fekk li ma taxulu na maa la na lu tax doo leen jëfee li ngeen di wax mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko musaana andil néew balaa mu koy jullee dafay gëstu ndax moom amal na am na ay bor mm-hmm. ba ñu ne waaw wala am na ku ko gàddu moo door ko jullee Mm. bu fekkee ne kenn jarul responsabilité pour wàllu bor yi yonent bi du ko jullee xam nga lu tax mm. parce que day euh, euh, dañu ne al daynu laa yub la day euh, bor du ràpp mm-hmm. loolu moo tax ëllëg yoomal xiyaam bu fekkee ne da nga ameel ay nit bor mm-hmm. te fayuloo ko ba àgg yoomal xiyaam mm-hmm. balaa ngay jéggu benn jéggu dangay ngay fay bor yëpp noo koy fay say jëf yu baax say jëf yu baax yi bu jeexee nag amel naa la un million. ñu daje yombal xiyaam nga demee jox ma sama un million fan laa koy jëlee. Mhm. boobu xaalis amatul. Mhm. léegi dañuy xool un million yi. Mhm. poids bu mu toll. ci wàllu jëf ju baax. ñu peese ko. léegi ñu tibb ci sama tuyaaba ñu jox la. noonu lañuy ñuy fayante fa fayante ay bor. oui kon xam naa ñu mën a def ay tuyaaba dina. voilà kon ki génn àdduna. balaa ñuy miiras dañuy njëkk xool ay borom. ay ñu génnee ko boppar ñu tegee ko ne le kon boo mooy première étape bi deuxième état bi mooy am na ay ndénkaane mhm. yi mu jotoon a dénk mhm. comme nii tey ñu ne ma ne ah soo Fatou defe daal eh, ma bind benn lettre mhm. ma nekk ne sama alal may naa ko ci un million ak nangam nangam te bi may wax loolu dama dama wér ping nekkuma ci mhm. feebar. nekkul ci mhm. ndax parce que nit bu demee ba nekk ci lalu feebar hôpital wala mu tëdd ci lalu këram di joxe ay ay ay ndénkaani déedéet parce que moom mu ngi ci feebar bi. Mhm. kon booy joxe ay ndénkaani day fekk yow wér dara jotu la. nga ne sama ginnaaw daal du sàngam may naa ko nangam may naa ko nangam ñu bind ko léegi nag loolu bu ñu bu ñu paree ci bor yi. dañuy jublu ci wasiya mooy ndénkaane bi léegi la mu doon dénk kii yëpp loolu ñu génne ko teg léegi nag la des ci alal ji ñu door a miraas léegi nag miraas bi amul àpp mm. sans départ rek mun na gaaw mun na bañ a gaaw mais bu fekkee ne ay njaboot yu bëri la mm-hmm. te alal ji dafa laaj ñu saytu ko comme kër euh, euh, du ñu ne comme que génn na àdduna rek na ñu jaay kër gi il faut que xool waxtaan ba ñëpp d'accord déggoo ni ci kër gi dañ koy jaay mais bu fekkee ne fukki euh, nit lañu personne lañu di personnes lañu léegi ne kenn bañ ne euh, kër gi duñ ko jaay. Mhm. ne duñ ko jaay de dañuy xool ñu négocier ñu xool nan lañ leen lan la ñuy def ndax parce que kenn bu xasee bu xasee bañ rek. Mhm. CEDEAO du ko force. du ko force déedéet. loolu moo tax nga gis yenn miraas yi dafay xaw a diire. Mhm. am na yoo xam ne dafay xaw a gaaw ça dépend alal ji ak situation wu njaboot gi. waaw mais loolu nag du tee aji dem ji nekk ci jàmm. Mhm. parce que nit ku nekk la muy am ci biir bàmmeelam bu fekkee ni yow da doon def jàmm ca àdduna. boo àggee sa biir bàmmeel jàmm nga nga fekk. mais du aajoo ne fekk miraasu la rek euh, miraasu ñu la rek doo am jàmm noo déedéet. Mhm. loolu nit ñoo koy wax ñooy waxee noonu rek. <laughs> <laughs> Euh, macha allah li ñu si waxtu temps jot na parce que nag ah, ku si mel ni sama sama sama cadreur ah macha allah moom mooy signal na waxtu bi jot na vraiment waxtaan bi neex na trop xam naa moom dañ koy daal di àggal rek xam naa lundi prochain lañ koy daal di ko àggale. parce que wàllu miraas dafa xóot te wàllu tamit dafa yaatu. Mhm. war nañ mën a waxtaan lu bëree bëri te xam naa incha allah dañ ci ñëwaat gën a yaatal yeneen yi nga xamante ne. des na macha allah tamit nañuy bàyyi xel bu baax baax baax ñu diggante ak suñu borom waaye nag xool la nga xamante ne yàlla suñu borom moo ko digle tamit ñu koy def mm-hmm. nit bu génnee àdduna bàyyi fi alal rawatina bàyyi fi ay njabootam nañuy xool la nga xamante ne dafa dëpp ak suñu diine mm-hmm. ñu koy def te bàyyi yëfi caaxaan yi bàyyi yenn détails yi nga xamante ne ah, mm-hmm. neexu yàlla neexu yonent bi te ànd ak suñu diine ñu fexe di ko moytu tamit ñi def la nga xamante ne ah moom la yàlla bëgg moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ñu jéem ci tamit lépp luñ ci mën sax waaye nañ jéem parce que yéen man yàlla foo ko natu weesu na ko kon nag ni ñuy góorgóorlu ñun julliti yàlla yi ak ku xet bu mu munta doon ne moo xam chrétien bi la moo xam musulman bi la mm-hmm. nañuy xool la nga xamante ne nag yàlla moom la déglee mm-hmm. ñu siy def ñu def si lépp lu ñu mën kon lu ma wax rek mu ñu mënul lépp nañ jéem rek te wax dëgg yàlla dama ne yàlla lu mu bind si ko suuf doomu aadama la si gën a fonk parce que bind na façon mala bu ne waaye ñun yàlla da mën naa ne daf ñoo beral loxo kon nag dañuy góorgóorlu suñuy diggante ak doomu aadama yi yàlla mën nañu jéggal waaye ñun suñu biir bu ñu jéggalantewuñ rek mhm. macha allah duñu dugg parce que nag foofu moom xam naa day xaw a yàgg waaw parce que moo a jàll mën na ko yàlla moo di jàll parce que wax na ma lii ak lii kon temps bi mhm. foofu kon nag mhm. yal nañu yàlla jàppale yàlla suturaal lañu waaye nag walaa may tàggatoo damay bàyyi sama jantal imam am sama jantal oustaz mu daal di tàggatoo si équipe Grand Yoff TV ëtt Fatou. waaw fa tabarakallah asana xaalixiin xam naa waxtaan bi eh, eh, eh, li ñu li ñu ko war a xootal dëgg dëgg dëgg mm-hmm. defuñu ko mm-hmm. ndax parce que miiras xaju ci benn benn jotaay mm-hmm. parce que bala bala miiras war nañu leeral ñi war a doon ak ñi nga xam ne du ñu doon ak nan la ñuy doon ndax parce que dafa am li wax Eh, sulus am sumoon am rubu am sudus yooyu yëpp ay part la ci biir miraas te loolu tamit dañ ko war a xam mhm. xam naa du mun a doon ci benn jotaay mhm. xam naa bu yàlla dogalee bu ñu ñëwaatee insha allah rabbi fa mhm. tabarakallah ñi jiim ca wax fa tabarakallah di am kontaan mbégte bu baax ci dala bi ma eh, dalal ci émission bi am solo bi muy ëttu faatu di jégalu borom xam-xam yi nga xam ne fa tabarakallah ñuy ñuy suivre et bu ñu defee njuumte rek ngeen xam ni ay nit la ñu fa tabaarakallah ngeen jéggal ñu bu baax a baax a baax a waaye bu jubee ñoo xam ne ci borom bi subhanahu wa taala mm-hmm. di am kontaan mbégte bu baax Seyda Fatima macha allah di la wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu <laughs> moo ngi noonu marhaba macha allah euh, bég naa bu baax a baax sama jantal imam bi sama jantal oustaz bi ah Omar Ndiaye macha allah heure bu ma ko soxlaa rek daf may mm-hmm. yombalal bunt yi kon nag yal na yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko fi dëgg mm-hmm. taxawaay bi macha allah loolu la koy ñaanal duma ma tëj te du nuyu ka nga xamantene tay moy mo tay rek mo mo japp ci walu cadreur bi nek ci technicien bi nek nak ci montage bi kenn Mor nee neena sama jambar la waye nak jambar Ibra Fall la koy tuddé parce que nak Baye Fall bu deuguer la macha allah dañuy rag nak yey say xawa ki tuti waye xol dañuy andat parce que nak liggéey ba koy laajtee macha allah Mor maa ngi lay bëggee bu baax baax di bëggé suñu secrétaire ka nga xamantene moy mooy Koña macha allah suñu secrétaire bu ñaaw bi ñoo ngi koy bëggé bu baax baax équipe Grand TV macha allah du ma tëj te nu ma nuyu ka nga xamante ne mooy sama sëriñ sërif alwali maana Ndiaye ah, doobu Cheikh Mohamed Vadal kenn du yow ah sëriñ bi ah Serif Alwali borom jamar la l'islamique yaa ah, macha allah yaa ngi jàngal ndaw yi macha allah ah di leen teg ci diine ak l'islam di ñu jàngal nag li nga xamante ne suñu borom loolu la wax muy surtout Cheikh na Cheikh Sadbu ah surtout Seydina Mouhamad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Serif Alwali Maana Ndiaye yal na yàlla dëggal sa taxawaay yàlla bàyyi la fi njaboot bi macha allah ba yaakaar bu ñu am ci yow rek yal na yàlla motal lépp nee naa yow sa maam fu mu tegoon tànkam Seydina Mouhamad rasulullah foofu nga teg sa tànkam sa maam Cheikh na Cheikh Sadbu fu mu tegoon tànkam foofu nga teg sa tànk kon na Serif Alwely Mané Ndiaye kenn di yow maa ngi lay bégge bu baax a baax ak say taalibe di la ñaanal jàmm bu baax a baax di wax na rek di leen jox dig daje jeudi émission gëm sa bopp bi Grand Yoff TV di si jégalu bu baax nag wax dëgg yàlla temps bu ñu toog tourné wuñ ko ñu ngi koy jégalu bu baax ba jeudi rek incha allah si émission gëm sa bopp Grand Yoff TV